wa naudu bika min charri ma fi hada al yawm wa charri ma baad wa naudu bika min adabin fi lxabri wa adabin fi naar mbokk su defeem seen rajo ci waxtaani fajar yim mu defal fajar jot ci waxtu wi dellu si ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba nu sante yàlla subhanahu wa julli ci yonent bi sallallahu alayhi noo ngi ànd ak moom fii ayaamihi al ci fanam yu mujj fanam yu mujj yi nga xam ne ci la tàggoog al umma ci zahir dellu ila rafiqil ala agsi woon nañ démb ba bi mu toogee di waxanteeg saaba yi wax yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ciy dégg tàggoo gi di wax ne kum ameel bor ñëwal kum masa dóor dóor ñëwal kum masa xas nga am ci loolu naqari ñëwal kum masa saaga ñëwal yooyu yépp mu di ko wax ca kanam nit ña ba Omar ibn Khattab wax ca lam ca wax keroog ba nit ña ree mu tontu ko lam ko tontu woon sallallahu alayhi wa sallam daal di dellu néegam ndax néegam ak jàkka ji ñoo taqaloo woon métit wa seddagul ba léegi <coughs> ngeen jéggal ñu léeg-léeg mu génn ilal masjid yi ngir xool xeetam wi ak liggéey bi nga xam ne liggéey na ko ci xool ar rijaalu alladina ahabbahum góor ñi nga xam ne jàmbaar yi nga xam ne ku leen bëggoon la ak jigéen ñi nga xam ne moo leen formé woon sallallahu alayhi wa sallam abu said al xudri radiallahu anhu ma nga naan yonent ba toog na benn bis ca minbar ba mu ne inna abdan xayirahu llahu bayna an yutiyahu min dahrati dunya ma shaa wa bayna ma indallah faxtaara ma indallah mu ne ab jaam a ngi nii boo xam ne yàlla daf koo tànnloo diggante ñaar àdduna ju neex lool wala boog euh, àllaaxira ju neex lool nee na waaje ne moom tànn na àllaaxira ju neex lool lu àdduna naqari naqari Abubakar daal di jooy radiallahu anhu ne ko fadaynaaka bi abaina wa ummahatina ya rasulallah jotee nañ la sunu baay yeeg sunu ndey yi yaa baax Abu Saïd nee na ñun ñëpp ñu ñu jaaxle ñu ne unzuru ila hadha sheikh yuxbiru rasulullahi an abdin yu xayir wa yaqul fadaynaaka bi abaina wa ummahaatina fa kaana huwa al muxayir wa kaana abu bakar alamana bihi nee na bi yonent bi daaneelee ba abubakar tontu ko lii la leen yéem mooy ku leen wax ne yonent bi boppam la doon wax ak nan la Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu xamee ne yonent bi boppam la doon wax nee nañu yéemu ca lool waaye Abu Bakar moo leen ëppoon xam-xam ci wàllu googu moo leen gënoon a xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax su yëkkatiwaan kàddoom lu muy bëgg a wax rek xaw na koo xam waaw lu muy bëgg a wax rek xaw na koo xam waaw la président waxoon ca nguuram sa lu muy bëgg a wax lu may bëgg a wax rek xaw na koo xam <laughs> yàlla yàlla yokk leen wér fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna am inna amanna nnaasi alayya fi soxbatihi wa maalihi abu bakar walaw kuntu muttaqisan qalilan lattaqastu aba bakrin xalilan walakin ixwatun fi lislaam mu ne ñi ma gën a ki ma gën a wóolu ci nit ñi ci ànd ak moom ki ma gën a wóolu ci nit ñi ci jël alalam sànq ko ci samay projet mooy Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhu mu ne su ma doon jàppe kenn xarit su ma amoon xarit ci jullit yi Abu Bakr Siddiq lay doon mu ne ma waaye aw ma ci xarit ay mbokk rek laa ci am ñoom ñëpp samay mbokk lañ beneen riwaaya mu ne walakin suxba wa ixaahun wa imaan xata yajmaun xata yajmaa allahu baynana ba bàyyi yàlla dañu dajale ca kanamam ndeysaan ci biir feebar bi nga xam ne ci la nekk nii bi mu jógee ca aj ga ba léegi Euh, léeg-léeg nit dugg seet si ko noo fanaane mbaa yaa ngi fiix rek daadi di génnaat Abdullahi ibnu Kaab ibnu Malik mu ni ibnu Abbas nee na ko Ali ibnu Abi Talib dafa génn ci yonent bi alayhi salaatu bàyyi ko fekk mi ngi ci feebar bi bi mu ne tël ñépp wër ko ni ñuy def ku génn ci hôpital te bàyyi malade ci biir ñu ne ko yaa aba yaa aba xasan kayfa asbaxa rasulullahi sallallahu alayhi nu yonent bi fanaane mu ne asbaxa bi hamdillahi baari an sant na yàlla wér na sant na yàlla wér na al abbas ibnu abdul muttalib daal di jàpp ca loxo bi yonent ba ne ko seetlu nga li nga wax innaka baada thalathin abdul atha wa inni ara rasulullah sayatawaffa fi wajhi hadha wa la aarifu wujuha bani abdul muttalib inda al al abbas ibnu abdul muttalib ne ko seetlu nga li ngay wax kii ma gis dey li ma xamoon ci banu abdul muttalib bu nuy génn àdduna man abbas gis naa ko ci moom ku ci masa mel ci ñoom nii mu mel tey daawoo jóg fa sa ab ila rasulillahi demal ca moom nga laaj ko lu xew demal ca moom nga laaj ko lu xew bu fekkee lu muy dénkaane la mu dénkaane ko aliyu ne leen wallahi la in saalnaaha rasulullahi fa mananaaha laa yutinaaha annaasu abadan wallahi laa asalu rasulullahi abadan aliyu ni abbas li nga may laaj loo du ko laaj ndax su ma ko xañee duma ko amati bu ñu ko xañee duñu ko amati ba deme ci albuxaari jukkib juróom-ñett xatum téeméer ak fukk ak juróom-benn jàpp téeméer fukk ak juróom-ñaar foofa la wax ji wax ji nekk al abbas ci wàllu alxilaafa te mooy bu fi yonent bi jógee ku koy wuutu ci yooye la nekk ndax moom mi ngi yëg ne yonent bi feebaram bii bu ko jël si la feebaram bii bu koy jël si la mu ne ndax gis na ne mbokkam yi buñ masaana nekk ci feebar bu mel nii ku ca masa tollu daawoo jóg euh, bani bani Hachim comme kii mooy seen sang di ne ci seen kanam kon war naa xalaat bu fi jógee fan la xilaafa gi di jëm ñu daal xool kañ lañ kan la proposé bu ëllëgee kon ci mbir mii nga xam ne moom la yonent bi yoroon sallallahu alayhi wa sallam na ko mukk bayda anna aliyan kariha an yukallima an nabiya fi dalik Aliou ne ko mukk loolu di duñ ci waxtaan lu tax tarkal amri li jumhuril muslimina mooy la gën a jubu Aliou ba dem cëri bu ñuy wax fiqhu sunna li Muhammad al Ghazali moom it wax jii may wax nii wax na ko ca ca page 466 yonent ba sallallahu alayhi wa sallam mbirum bind yitteeloon na ko qad hamma bi kitaabati ahdin summa bada lahu faxtaara an yadaa al muslimina wa sha'nahum mbirum bind yitteeloon na ko ba mu nar a jël bindukaay bind wala mu bind lu waaye loolu yi àll yi waxoon léegi tarkal amr tarkul amri li jumhuril muslimin mu bàyyi nit ñi yantaxibuuna li xiyaadihim li xiyaadatihim man yuhibbuun ñu samp ku leen neex ndax la yàlla ne wala yonent bi mbir mi moomoo ko <coughs> ndax bu doon xilaaf ak lu mel ni ab tarixa wala yooyu bu fa nit koy jóge bu ko neexee dénkaane waaw bushraakumu mansuuru qad wulliitumu sirral xilaafati mawrida damaani Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz ak yeneen ak yeneen waaye bu dee lu mel ni ak nubuwa lu mel ni risaala laysa laka min al amri shay'un moomoo ko lañ koy wax moo tax yonent bi bàyyi leen yantaxibuuna li xiyaadatihim man yuhibbuuna ñoom ñooy tànn ku ñu bëgg waaw loolu la hadiis ba waxoon halummu aktubu lakum kitaaban boo demee ci albuxaari ñëw leen ma bindal leen feebar bi ca yonent ba alayhi salaatu salaam kon mu ngi ko tëral ba léegi faatima doomam ja doom ju jigéen ja daal ñëw gis ni mu tëddee ak ni mu daan def ci seen diggante mu ñëw moom Fatima daal ne waa korba abata waaw daal jooy ne waay sama baay sama baay sonn na waay baayam sallallahu alayhi wa sallam ne ko laa korba ala abika baada al yawmi bu tey weesoo sa baay dutul sonn sa coono baay tey lay yem allahu akbar mu ne ko bu tey weesoo sa coono bàyyi tey lay yem ndeysaan Fatima loolu la ko bàyyam wax sallallahu alayhi wa sallam Usaama moom déggoon ngeen ci bind yi weesu yonent baa ngi ko yebal ca Rome xale boo xam ne mu ngi toll ci dix-huit waaye sallallahu alayhi wa sallam defar na ko daara defar ko ba mu am yu muy bañ am yu muy rus mat sëkk jàmbaar moom tamit ma nga ca xare ba xibaari feebar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma nga leen di fekk foofa ca sàppe sa muhammad ibnu usama jële ci baayam mu ne bi feebar bi diisee euh, nit ña daal ñëw wër ko ñu ànd ak moom na cëpp ilal madina daal dugg sa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkuñu ko muy wax mu ni cell usaama ñoom nee na ñu ñu gis ko muy yëkkati loxoom ila sama nee na boo ko jë yëkkatee ci asamaan sa daal koy teg ca kawam ca kaw euh, usaama mu daal xam ne kon kii daf koy ñaanal usaama dina ma daal xam ne kii daf may ñaanal bu yëkkatee loxo bi jëmale asamaan fab loxo ba teg ca Usaama waaw nu toog rekk wër ko ñoom ñëpp mu ngi dendeek benn leket gu ndaw walla lu def ndox di dugal loxoom ca ndox ma di raay ca xar kanam ba naan allahumma ainni ala zakaratil mawt allahumma ainni ala zakaratil mawt di ñaan yàlla naan ko yàlla maa ngi la ñaan nga dimbali ma ci méccitu dee bi julli jotee te mu nekk ci xaala boobu mbooloo mi julli gi jot na lu seen yonent feebar feebar du leen tax a bàyyi julli allahu akbar am na ñoo xam ne xaala bi buñ ci tolloon boo muy tuut kenn du julli ñun bu ñuy dajal ku baax sax faat julli bu ñuy dajal ku baax sax ñun ñu bari faat julli waaw léeg-léeg sax du ñuy dajal ku ku mel noonu waaye ab dëj dag buñ ci nekkee faat julli gaa yi nag nekk fa ne fa ñukk yónante ba daal dem ci julli ga ñu ne Abubakar Siddiq yaay jiite Aysa ne la ah ndax sama baay mën naa jiite ñu ne ah kay na jiite damay Abubakar day yonent bi tëdd fii mu dem ca kanam jiite loolu de moom xolom dog ko ñu ne waaw na jiite rek muru Ababakar fal yusalli bin naas na jiite Aysa ne déet yonent bi ne ko eh Aysa daal di noppi yonent bi ne ko innakunna sawaa'ibu Yuusuf yéen ay àndandoo yuusuf yi rekk ngeen nara a indi ne leen abubakar fal yusalli bin naas abubakar na jiite abubakar nee nañu julli jiite na jiite na julli ga fukki fan ak juróom-ñaar wala boog fukki julli ak juróom-ñaar waaw jiite na leen ko fukki julli ak juróom-ñaar jiite na ko mu Abubakar Siddiq yoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam mi ngi tëdd yooyu yëpp min ashaddi na min ashaddi ayaami thiqlan alayhi fan yi gën a diis ci Abubakar Siddiq fan yooyu la te mooy jiite nit ñi te yonent baa ngi tëdd mu ne leen waaw ni nit di feebare ci yéen laay feebare ndax kenn laa ci seen biir waaw nit di feebare ci laay feebare ndax kenn laa ci seen biir ah, mu tàmbali nag di leen waxtaanal waxtaan yoo xam ne lam cay bañ bu ëllëgee mooy fañ koy denc ak itam nañuy jàppe fañ koy denc bëgg nit ñi sellal te wéetal yàlla dong tabaaraka wa tax mu nekk ci sakaraatul mawti di yëg loo xam ne kenn yëgu ko waaye teewul muy waxtaan ak nit ñi mu ci ay waxtoom yu mujj waaye mu ne laanatullahi ala alyahudi wa nasaara mu ne yàlla bu yàlla yërëm yahudi yi yàlla bu yàlla yërëm nasaraan yi lu xew mu ne ittaxasu xubóora ambiyaihim masajid mu ne ñoom dañoo jàppe xabru yu seen yonent ay jàkka maanaam lim bëgg mooy loolu bu ko kenn def bu fi jógee loolu bu ko kenn def bu fi jógee loolu la bëgg a wax te mu ngi ci sukuraat jamono jii mu toll li muy metti metti teewul mu dugal wax yu am solo yooyu ndax loolu léeg lekk mu dal aw nit ginnaaw bu seen kilifa làqoo ndax yooyu mën na leen a fàtteloo li taxoon julli ñëw ñi nga xam ne ñooy topp bànneex ak ñiy topp bànneexu rëy yooyu yëpp mën naa am ci ñoom te itam loolu déviation bi muy indi ci dund gi dund gi soxlawu ko kon bàyyi lépp di dox ni mu war a doxe lu ne ñu teg ko fa mu war a tege loolu mooy li nga xam ne moo baax ci dund gi moo tax ca nokkeem yi mu ya ca kàddoom yi mu ya muy bàyyiloo xel nit ñi bi mu liggéeyee ba noppi fiñ ko denc ak lim fi bàyyi ak yooyu niñ ko war a mën a exploiter niñ ko war a mën a dunde lu bokkut ak dundin wi nga xam ne moom la jàpp ne buñ ko defee mën naa am mission bi Euh, du jaar fa mu bëgg moo tax ndénkaaneem ya alayhi salaatu wasalaam bi mu tollee ci waxtu wii mu toll euh, ma ngi naan salaatu assalaatu assalaatu wa ma malakat aymaanukum loolu daa bokk ci kàddu yi mu mujj wax julli julli julli di ko baamtu rek ak ñi ngeen yilif wa maa malakat aymaanukum mooy jaam ya wa maa malakat aymaanukum mooy képp koo xam ni kii yaa ko yilif ca fa muy liggéey benn muy sa mbindaan mbaa muy sa am emploi defe lu ñu koy waxe euh, professeur ji bi bu jubul nga jubbanti Euh, muy sa employé boo xam ne yaa koy liggéeyloo fa mu nekk ñooñu ñëpp bi yonent bi dénkaanee julli lam ca teg mooy sunu diggante yi rek la bëgg wax ndax suñu rapports sociaux yi li nga xam ne moom la ci yàlla soxla jullee koy jagal loolu la dénkaane amal ko solo lool waa amal ko solo lool la mu daal di jékki-jékki rek na nañ ko yóbbu ca jàkk ja ndeysaan mu war a nekk tàggoom bu mujj digganteem ak waa jàkk ji mu jóge nag Aïcha te mooy fee mu tëdd tey ñëw ci jàkk ji daal di jiite nit ñi mi ngi toog moom abu Aboubacar taxaw lum def Aboubacar jottali ko nit ñi te mooy bi Aboubacar tàmbali di di julli rek la daan ne tëll ca jàkka ja Aboubacar daal di dellu ginnaaw tuuti yonent bi alayhi salaam ne ko taxawal fi nga taxawoon mu taxaw moom ci càmmooñ mu toog ci jaan càmmooñ Aboubacar daal di ubbi. fa fa laaya ja Abubakar yemoon mu jële fa Abubakar di roy ci yonent bi nit ñi da roy ci Abubakar Saddiq radiyallahu anhu imaam Ahmad nekk leen boobu ak Ibnu Maaja julli googu daw yaram lool daw yaram lool kon waxtu yooyu yëpp Abubakar Saddiq moo doon jiite nit ñi ba subëg wala fajaru bis bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàccub liggéey waaye lépp rek yonent bi xolam baa ngi wékku ci xeetam bi sallallahu alayhi wa ak bu ëllëgee nu ñuy def ah, waxtu yi nga xam ne moom moo mujj ci dundam mu feebar feebar bu mel nii ba noppi di ñëw ci jàkk ji ñëwin wu mel nii loolu war naa jàngal waa jàkk ji war naa jàngal xeer wi ñoom ñëpp taxawaay bi mu bëgg ak ni mu bëgg ñu mel ko bis bi nga xam ne ci la génn àdduna fajar ga julli si na mu nga wax yonente ba alayhi salaatu wasalaam euh, rido bi nga xam ne moo doxoon digganteem ak nit ñi rëdd booba daal di mureeku keroog tuuti kon nit ñi duñ julli luñ xam ndax ma nga ca néeg ba di leen bàyyi xel ñu ne ca jàkk ja du julli tisbaar mu joxoñ leneen continuer leen seen julli daa ba ñuy julli ndeysaan ma nga tëdd ca lal ba waaye gis niñ joxe julli xel mu daldi muuñ alayhi anas mu ne maa raaytu rasulallahi ahsana hayatan minhu fi tilka saa mu ne keroog na mel doomu aadama mosu koo gis ci rafetaay ci jëkkaay ci waajaay ila rafiqil aala waajaay wu jëkk ndax mu ngi ci waxtoom yu mujj mu daal di delluwaat nit ñi delluwaat seen barab jàpp ni kii kon wér na peleg bu fi jógee di daal di jóg rek ñëw ci sunu biir loolu bokk na ci li daalal xelom Abu Bakr Saddiq rajalaahu anhu ci sëriñam boobu nga xam ne moo tëdd nale Aïcha mu ne mu jóge ci jàkk ja ñëw sama néeg daldi jël mbàjjam daal di tëdd mbokk yi sallallahu alayhi wa sallam fi ayaamihi al axira ginnaaw bi rabiil awal jeexee ak rabiu thani mi ngi nuy tàggu sunu yaram daw nun ñépp tabaarakallaahu dañoo agsi nag fi ñu war a yëkkatee jataay bi ndax suñ mbokk yi xër ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seeni kayit bëgg leen firiñ fàncal xibaar tubaab firiñ fàncaloon ko ci wolof ñaanal leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir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 ibnu xayim al jawziya al imaam moo ko bind ci di ci firi surat al tuddee ko manazil iyaaka naabudu wa iyaaka nastain def ko ci xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xam bi yar jikko xam-xam bi yar ruux xam-xam bi yar bakkan te xam ngeen texeeg nit yàlla nga ko gàll ci nam yare bàkkanam ñax gaa texe yàlla nga ko gàll ci nam sàggane bakkanam xad aflaha man zakkaaha wa xaaba man dassaaha looloo tax muy bind yu am solo sunu mbokk mële ca làmp faal sëriñ xaadim njaay ci yu mel noonu lay jàngale ba ñu tuddee ko xam-xam boobu walla ñu ko koy dàkkantale xaadim njaay tasawuf yal na ko yàlla yokk wér àndoon nañoo ak yéen ba àgg ci wàccuwaayu ñaar fukk ak juróom-ñett station 28 professeur Djibi ñaar fukk ak juróom-ñett jéego yooyu nga xam ne moom la nit ki di séqi jëm ca boroomam subhaanahu wa taala euh, tuddaloon nañ leen jéego yooyu ya nga xam ne moom la tàmbalee ak ya ci jiitu tàmbalee ko ci ñeent yi nga xam ne ñooy laltaay yi mu di al yaxasa muy yeewu al muy xalaat al muy xam al muy dogu boobu ca la mbokk mi ñëwee ba agsi ci ñaar fukkeel ak juróom-ñett ci jéego muy asabr te mooy muñ ñëwoon nañoo gi yéen ci wàccuwaayu muñ yooyu ba agsi ci euh, tomb yi nga xam ne wala xeeti muñ yi nga xam ne am na ci alxuraanul karim ba limoon ci fukk ak ñaar wara wéyal tomb boobu incha allah euh, ñëw ci fukkeel bi ak ñett fukkeel bi ak ñett mooy su fekkee jàpp nañu mbaxana mooy al ixbaar annahu innama yantafiu bil ayaati wal ibar ahlu sabr yonentu ba salala wala bokk laay ji day jàngale ne ñi nga xam ne ñooy jëriñu ci wàllu kaawtee fi yàlla di won ne mooy yàlla ña koy jariñoo mooy muñkat yi dong moom la waxoon Muusa ne ko ana xrij xawmaka min adulumaati ila nuur wa dakkirhum bi ayaamillah inna fi dalika la ayatin li kulli sabarin shakur mu ne ko génneel sa nit ñi min adulumaati ila nuur comme ni koy wax saa su ne nag Moussa ab politicien la woon ndax mission politique la ko yàlla joxoon yàlla ne ko génneel sa nit ñi ci lëndëm yu bari yi nga xam ne ci lañ nekk génneel sa nit ñi ci crise yi nga xam ne ci lañ nekk crise avec S professeur ileen nuur jëme leen ci développement loolu la yàlla santoon Moussa génneel sa nit ñi mina zulumaat ci crise yi ñu nekk loolu tam mooy taxawaayu politicien mooy lan bu ñëwee fexe ba nit ñi crise yi nga xam ne ci lañu nekk ñu jóge ca dem ci développement développement jërul es moo tax alxuraanul karim du ko du ko def pluriel singulier rek la koy def mina zulumaat ila nuur sunu borom ne ko nag wa zakiruhum bi ayaamillah nga fàttali leen fan yàlla yi mu ne ko en tant que politicien nga fàttali leen fan yàlla yi politicien léeg-léeg mu yendu ci fan yoo xam ne fan yi mbumbaay rek la ak dóor pooj waaye léeg-léeg mu fan mu yendu ci fan yoo xam ne fan yi analyse rek lay doon ak xulo loolu mënta ñàkk ci politicien mu ne ko nag inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur yooyu yàlla lay doxal mandarga la muy wan képp koo xam ne muñ kët nga tey sant euh, yàlla ci la lay jàngale yi ngay jàng yépp moo tax ñaar yooyu baax ci politicien muñ ak sant muñ ak sant euh, mu waxaat ci ahlu saba fa jaalnaahum ahadis wa mazzaqnaahum kulla mumazzax inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur ahlu Euh, foofu nga xam ne fi la la reine dëkk la reine de Saba defe naa nu lañ koy wax bu fekkee nun la baax na bu dul noonu nga jubbantil ma professeur <laughs> ndax yéen a jàngi woon mbindum càmmooñ ñooñu yàlla mu ne ñu def leen léegi ñu raaf ba dañ leen di waxtaane léegi fa ñu toogoon toogatuñ fa la ñu nekkoon nekkatuñ ko lañu nañu meloon melatuñ ko léegi daal la des mooy ñu leen di waxtaane ak di ca teg ndeysaan yàlla mu ne wa mazzaxnaahum kulla mumazzaq ñu xàjjale leen xottite leen ba ñu tasaaroo ba jeex takk yàlla mu ne loolu màndargal moo xam ne day wan li kulli sabarin shakur mu nga kon muñ kata ba tey mooy jàng ci loolu boo demee ci suratu shura saar wi nga xam ne moom lañ tuddee démocratie ci alxuraan euh, ci maanaam mi nga xam ne moom la la ko la ko diine xame waaye du maanaam mi nga xam ne moom la ko tubaab yi xame ndax ci wàllu àdduna doxalin yooyu moom foofu démocratie amu fi baat bi rek moo fi nekk baat bi rek moo fi nekk baatu démocratie moom mi ngi fi waaye nag euh, jëfin wu moom Euh, la man nga ne da génn Afrique door koo gis <laughs> waaw dangay génn Afrique door koo gis mu ne wa min ayaatihi ljawaari fi lbaxri kal alam in yasha yuskina riyaax aw réex fa yadalalna rawaakida ala zahri inna fi dalika la ayatin li kulli sabarin shakur muy daa bokk ci liy wane ne yàllaay yàlla batu yi daw ci kaw géej mel ni montagne loolu ci kiimtaan yàlla la bokk boo ñëwee fii ci ci port bi léeg la ñu la fi bato boo xam ne bii danga nga naan déedéet bato bi moo ëpp ñaari kër te it bato bi day def ay conteneur conteneur yi biir gi lu nee ngi ci bato bi déqeeg moom Europe mbaa Amérique mbaa Asie di ko dox ak ci kaw ndox mi ba agsi fii te yàlla nee na su ko neexoon yuskini riix mu mu mu téye ngelaw li ndax bato ngelaw a koy doxal ñaari ngelaw lenn li mooy moteur su boobaa ngelaw la lenn li mooy ngelaw li nga xam ne mooy upp yooyu ñuy aj ca kaw su boobaa ngelaw la xeet yooyu mooy dawal bato moo tax sunu borom tudd ci ngelaw oto yii nga xam ne moom lañuy ñuy war it di xëy di liggéey di wàcc di ñibbi wala di génn ci dëkk bi di dem ci yeneen dëkk yi oto yooyu it ngelaw rek ngelaw a koy dawal ndax moteur bi ngelaw la waaye pneu yi itam ñeenti pneu yi bu ci nekk da ciy def kilo ngelaw ak liibar am na ñuy dem ba def ñaari kilo ngelaw def ko ci mën ci ci ci pneu bi yéeg ca yàlla nee na su ko neexoon ngelaw yooyu mu téye leen bu leen téye woon tabarkàlla àdduna tukki mu ne inna fi zalika la ayatin loolu war naa woon nit ni yàlla rek a yàlla kon bunt boobu nga xam ne mooy asabru muñ ko di ñooy xam ñett yooyu muy tomb fukkeel bi ak ñett ci xeet yi nga xam ne mooy xeeti muñ ci alxuraan fukkeel bi ak ñeent al bi an al fawz al matlub al mahbub wa najaatu min al makruh wal marhub wa duxulil janna innama naalahu bi sabri sunu borom mi ngi nuy wan ne nit ki li nga xam ne moom la bëgg ci àdduna bëgg ko ca àllaaxira jafeñ-jafeñ yi fi nekk yépp mu mucc ci tiitaange yépp mu mucc ci ëllëg mu dugg aljanna yooyu yépp nit a ko mën a amee ci muñ alxuraan ngi wax ne wal malaaikatu yadxuluuna alayhim min kulli baab salaamun aleykum bima sabartum fa nicma uquba daar sadaqallahu bu nit ñi duggee aljanna malaaka yi dañuy dugg moom min kulli baab ndax malaaka barsi la yor <coughs> malaaka ci aljanna malaaka ju def lu koy dugal aljanna mbaa lu koy dugal sawara déedéet ñoom yowmal xiyaam ci biir aljanna malaaka yépp ay barsi la am moo tax yadduxuloona min kulli baab bu amee badge fii ci pale bi palais palais président yàlla na ko yàlla yokk wér booy dugg kenn du la wax da ngay ñaan audience déedéet badge bi ngay wane rek badge dem na léegi ba yéeme lool tabarkàlla ci barab yu baree bari yoo xam ne sa badge moo lay ubbil sa buntu xam ngeen ne léegi léeg-léeg nga dem ci barab sa badge moo lay ubbil bunt bi nga xam ne ci ngay dugg badge yooyu moom la malaaka yi di am su ëllëgee bu yomal xiyaamate ci aljanna ja léegi nag yadxuluuna min kulli baab bu ñëwee nag naan salaamun aleykum salaamun aleykum yéen day am ngeen jàmm salaamun aleykum am ngeen jàmm xam ngeen lu may jàmm ñu ne dee mu ne bi maa sabartum muñ ga ngeen muñoon moo leen may jàmm ji fa ni'ma uqba daar aljanna neex <coughs> aziim ngeen jéggal ñu ci tabaarkalla <coughs> yooyu fukkeel beeg juróom ci xeeti muñ yi mooy annahu yuurisu saahibahu darajatal imaama <clears throat> nee na koo gis mu jiite muñ a tax mu jiite ku muñul di jiite kenn koo gis mu jiite la tax mu mën a jiite mooy dafa muñ <clears throat> cheikh islaam ibnu taymiya rahimahullah wa qaddasa ruuxa daana wax ne bi sabri wal yaqiini tunaalul imaama fi diin mu ne ci muñ ak wóolu yàlla ci la nit di amee njiit ci diine allahu akbar ndax obstacle yi nga xam ne mooy gàllankoor nit bu ko jéggee rekk nekk imaam waaw doomu aadama bala ngay jiite dafa fekk danga muñ te am yaqin moo tax bu njëkk lu nit ma sa nekk daf cay toog rek xaar ca yàlla xam na moo tax waa xaar yàlla tudde seen quartier ba xaar yàlla